suñu boroom yàggal ko fi waaye di sant ki nga xamante bi moo am xalaat bii di sëriñ Abdou Samad Mbacke ibnu Cheikh bu Mbacke waaye ñi ngi sant ñi nga xamante ni bii ñoom laa fas yéene seqal jataay bii nga xamante ni bii mooy jataay boo xamante bi mooy jataayu gàncax ki nekk sama ndijoor di professeur Serigne Gora Seye ñëpp xam ko ci bitim réew waaye ci réew mi muy boroom xam-xam bu mag ki nekk sama càmmooñ di professeur moom tamit ci lii mu nekkee ñu koy wax Serigne Modou Gueye Gandigal ñëpp xam ko ci bitim réew ak ci dëkk bii di senegal sëriñ bi ci xereñu boppam moo tànn kon jotaay bii lii lépp nag du lenn lu bëgg askan wi am jàmm ndax doomu aadama bu amul jàmm dara du mën a jag balaa ñoo ñëw ñoom ci question yi ñu ñëw ci waxtaan wi nga xamante ni bii mo am solo ngir fi gantax tollu nit ñi dañu wara xam lan moy garab ak ciosanul garab lan la ndax sama mbokki olof yi ñoom japp na la garab mom garabu olof la wolof moomul garab ki mom garab moy kan moy sunu borom subhanahu wa taala su ko defee nag dinañ xaabaabal ci lan mooy dëgg-dëgg gi garab waaye lan mooy dëgg-dëgg gi am paj ñu tuddee ko paj moo xamante bi pajum lislaam la ak tibb nabawi nga xamante ni boo ko xoolee sunu boroom moo ñu ko digal mu rot ba ci nit yàlla yi mu agsi ba ci ñun wax ji may bëgg wax nak mom lay ubbé waxtan wi bo démé ci 10 القران الكريم مغي وخنان فقد هنا سبع سماوات في يومين واوهى في كل سماء امرها وزين السماء دونها بمصابها وحفظا ذلك تقدير عز عليم lu waral ma indi aay bi mooy ku mel ni umu kazir rahmahullah dafa wax ne abi hurayrata moo ko soloo moom mu jële ko ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam sunu boroom subhanahu wa taala moonu moonu jàngal ne mi ngi bind suuf yàlla dafa préparé doomu aadama laata doomu aadama di ñëw ci kaw suuf mi ngi mel ni rek ku war a sancub dëkk yóbbu fa lépp loo xamante nit ki daf ko yittewoo yàlla noonu la def doomu aadama bi muy bind suuf bi muy lal suuf mi ngi ko lal bisub gaaw bind doj yi bisub dimanche bind garab bisub altine bind naqar ak tiis bisub talaata bind leer bisub àllarba bind lépp luy dox gëléem ba ci jaan ndegment xayawaan bépp xayawaan mu bind ko bis bi nga xamni bi mooy bisu alxames doora nak indi ki nga xamante bi moy doomu adama mu indi ko aljuma gannaaw takusandi kon gis nga sunu borom ñi mu kiimaanee laata loolu lepp di ñew xamne ki ñew ay bëgg-bëggam lan ak lan la mu préparer ko aduna bi ba mu ba wàcce li nga xamante bi saa bu problème amee ci loolu lay taxaw loolu la suñu boroom def daal di bind aadama bisu aljuma ginnaaw tàkkusaan foofu tam fi ngay jàngee fi ngay xamee ne boo demee ci alquranu karim baatu li xaw mi yàqiluuna suñu boroom daf koo tudd tudd ba kenn xamuñu toll booy xool daanaka tudd na ko lu mat ñaar fukk ak ñaar su fekkee ne juuma foofe ma ngay wax ak nit ñi nga xamante dañoo am xel nit ñi nga xamante dañoo am xel la foofu la suñu borom di waxal foofu nag danga ci jàng ne yàlla dafa bëgg kuy jarañoo am xelam ba tax na bu ñuy wax nit nit a gaa tax nit kese doyul waaye nit ku nite ba tax na lépp lu muy def war na koo càmbar ak ci lu mu mën a doon dund nit ki ak dund ak dundiin bi dund ak dundiinu nit ki dundiinu nan la lu mu war a def lu mu warul a def alquran moo nu xamal garab ndax waqul naa yaa aadamu askuna anta wa zawjuka aljannata wa kula minha raqadan haysu sextuma wala taqriba ha sajata fa takunu min adaalimina aaya boobu ñu bari xam na li ci xew première histoire bi nit njëkk am ak sunu boroom gàncax la première histoire bi nit njëkk am ak suñu boroom garab la suñu bëggan suñu boroom bu bëggan loolu saafarawu du wàcce aadama ci kaw suuf kon foofu la koy saafaraa waaye daf ko yebal ci kaw suuf mu wàcc boo demee ci sotti fati aaya 17 suñu boroom junj nañu garab ndax saaba yee ba ñuy jaayante ci ron garab la ñuy jaayante ndax mom lay ay bi di wax laqad radiyallahu anil mu'minina yuho nak tahta sajdat fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa asabu fat'an qariban saabe ya ba ñuy ñi ngi jayante ca ron garab ga garab gu rëy gu nekkan Hudaybiya ci khilaf ak Sidna Umar ci lañ ko dagge won da ci xewit ñu bari xam nañ ko damay andi manay garab rek ba mi xam lan moy garab Seydina Omar dagg garab ga ngir lan dañ doon bañ nit ñi ëppal ba ci def yëfu xërëm moo tax aaya bi wax laqad radiyallahu anil mu'minina is yubaayi'unaka tahta sajarati fa alima ma fi qulubihim fa ansala sakinata alayhim wa asaabahum fathan qariban ba tey alquran mu ngi nuy junj wa qaala llaahu taala wa anbatna alayhim sajarata min yaqtiin foofu di ci ñëw yaqtiin mooy naajo boo xoolee sunu maam euh, Yunus bi ko jën wannee sunu boroom digal jën wi mu war a génne Yunus ci biir jën wi ba mu ko gëqee sunu boroom dafa dafa saxal naajo mu xamal Yunus na ko buddil ci xob yi def ci ndox mi ngir nga fajoo ca kon gis nga naajo tey fii science toll li mu mën a indi ci doomu aadama te bi koy suñu borom wax léegi kenn xamul ñu tollu léegi la ko borom xam yi commencé xam muy naaju mom la mom lañuy wax yaqtin bo ñëwee ci fiha faakit wanan waru man wa zaytun wa annaalan yàlla feñal na njëriñal tàndarma la ci nek xam ngeen ko ak grenade ak olive nga xamne garab bari na njëriñ yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena aliyun su nekk loon li may deeyaaleeg sans borom chaque jour dinaa lekk benn laaj fii science toll ci laaj kenn xamut nu mu toll te ba koy yonente bi wax léegi kenn xamut nu mu toll seexul xadim suñu yaakaar dafa wax ne bu ma teeloon na xam xorompolle polle du ma ñàkki bëñ xoolal fa mu toll moom sa gàncax nee nag bu teeloon na xam njariñul xorom du ñàkki bañ importance bi xorom-polle am dem na ba ñuy defar pâte dentifrice koo ci gis jël na xorom-polle boole ko ci parce que dafay régler bañ bi boo demee ci sourate Maryam aaya 36 wa huzi ilayka bi jus'i naxlatin tusaaqit alayka rattaban janiyan fa kuli wasrabi wa qari aynan Maryama bi mu bi mu bi mu wasinee sunu borom daf na ko gësëmal tàndarma ji bi mu ko gësamee mu wadd mu commencé for ay doom di ko lekk loolu raxas meret mi fii jamono tollu nag jigéen bu tolloo diggante war naa bàyyi xel loolu ndax tàndarma njariñ yi mu doon ndax da ngay dem ci messin bi mu digal la fer tàndarma fer a ngi ci nga soxla deret tàndarma deret a ngi ci xoolal sunu borom ni mu digale woon. soxna Mariama bi mu wasinee gësëmal tàndarma ji doom yi wadd for ci jëfandikoo ko gis nga ko kon sunu borom moom mi nga xam ni moom moom àddunaam moo ñu digtal garab su ko defee dama doon ubbi rek ndax sëriñ bi daf ma diggal na ma nekkal modulateur kon ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom xam-xam yi kenn ku ci nekk dinaa la laaj bu ko defee kenn ku nekk di seetaan man cee jàngate waaye mën cee xame ndax tawat si yi nga xamante ni dafa dugg ci réew mi tiital na àdduna bi kenn ku nekk yaa ngi ciy wax kenn ku nekk yaa ngay wax la koy saafara kenn ku nekk yaa ngay wax sa xalaat kenn ku nekk yaa ngay wax boo defee lii def lii lii dina am mu mel ni dem noo dema dema dem dem ba jëggaani garab goo xamante bii dañ koy indi Sénégal ngir jàpp ne mooy saafara loola waaw ñun ndax ñun dañoo bokk ci doomu aadama yi ndax ñun dañoo amuti garab kon am na benn complexe bu nekk ci dëkk bi ndax bu loolu amee war noo xool ñi nga xamante bi ñooy seen xam-xam màcc ci garab ñu laaj leen laata ñuy dem ci beneen dëkk di fa jiggaani garab su ko defee kon yaakaar naa ne sëriñ góora yow lay njëkk laaj gannaaw bu ñu la nuyoo di la jaajëfal ci wuy si gi nga wuy si sëriñ góora kon ñu ngi lay nuyu auzu billahi min asheytaan rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من يشفي خلائقه من خلال تحسير حلاج صلى الله من النباتات صلى الله على أنقى نبي سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وخوت الأرواح وعزائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أه، إلاج مختار جي مالك جي نيونغ لزيارة بباخ أه، dama ne woon bu may nuyoo dinaa la ziyaara nuyoo la ndax li la sëriñ bi dénk ni nga ko doxalee ak coordination bi ni mu rafetee waaye ñoo ngi nuyu Cheikh Seydil Muntaxa Mbàkke sunu borom yàggal ko fi lool yàgg wu ànd ak wér ak xéwal ak mbégte mi nga xam ni bi mu ñëwee ba tey rek moo ngi tasaaroo ci xeet bi yëpp waaye ñoo ngi nuyu tey sant tey gërëm Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chouaïbou ci taxawaayam ci ay initiative am ci ubbeekoom xam nga jotaay boo xam ne boo xam ni dañuy woo ay nit yoo xam ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci plant ci Sénégal ñuy am ndaje mu toll nii mu toll ni màggal Touba ñu woote ko utal ko plateau jox ko gëdd waxuma musul am waaye ci sama xam-xam tey laa koy soog a gis waaye nag boo toogee ci dëkk boo xam ne buñ la laajee nu mu tudd nga ne Touba ak la Touba signifie dinaa ci ñëw ndax rëy na lu mel ni juddoo fi maa ngi yaakaar ne bu ñu fi jógee dama ne sunu paree dinaa ci waxtaana yow naa la ko déy war na am lu taxaw war na am lu Touba symboliser ci phytothérapie lu mu symboliser ci paj moo xam ni ci plante la te loolu dama ciy gërëm spécialement Serigne Cheikh Abdou Samad ci taxawaayam ci yaatalam mais dafay wane ni kii xalaat bi mu am day xalaat bu mag te yamalewu ko rek ñu ne pajum nàngam loolu dinañ ci ñëw kon maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama naataango bi di sunu kilifa ah El Hadj Sëñ ñoo ngi la ziyaare xëy na tey la yàlla dogal jotaay bi waaye ñoo ngi am cofeel bu baax ci yow. professeur serigne goro kaddu gi amna solo xamna di ñu wacc yow ma jox professeur serigne moudou gey gandiga rek mu nuyo ñu soga ñew ci question bi a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi lasi ansala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu hiwaja asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi noo ngi leen di nuyu nuyub lislaam di jiital nag ci nuyoo bi xalifatul am sëriñ taxa mbakki Basiir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér suñu ko nuyoo rek dafay mel ni néew nañu turu yi nek ci senegal yeb mo xam wawon la Njaasaan layen kaulat fami Cheikh Omar yi kaza wa kaza ndax Serigne Touba mom gratu khadim rasul la am comme nak moy rasul euh, ñepp la doon liggéeyal jawrin la ci tol bi ñu koy ñaanal señ muntaha mu yàgg fi te wér waaye it nag di ñaanal ak nuyu Cheikh Abdou Samad Mbakke moom señ Suaybu di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi lool te mu wér ndax man dama koy tudde xaadimul adara maanaam eh, eh, tarixa murit yoonu señ Tuubaa da leen di liggéeyal yag na ko xamit wax deug yalla dan and ak sama bayi Serigne Moustapha ballo buso dan ko seti te sama kolera ak mom ci keur Serigne Saliou la kon li ñu xam ci mom moy fédéré bolé l'islam ko ñor Serigne Touba ko ñor kon sumatege tégué bici nuyoo bi ci loxom rek da koy jallalel wa maram yépp rek képp ku sant Mbàkke ñu ngi lay nuyu euh, di santaat nag yàlla bu baax di am mbégte sëñ Malick ci xalaat bi nga xam ne ab du xalaat na ko rawatina bi mu la joxee mbir mi ne la nga coordonné ko ndax plateau tey bi dafa am lu bari lu fi war a génn ñu ubbi xelu nit ñi xamal askan wi waaye xamal intellectuel yi ñuy tudde ay intellectuel ci ñu xam ne fi àddina bi toll ci wàllu médecine amul benn médecine bu ñu fi mën a wax bu mën a indi ay résultats yi tax ak fi jamono toll bu dul la médecine par les plantes kon su bo su dajalee tey ay boroom xam-xam yoo xam ne yaakaar naa ne kenn du leen laaj ci Sénégal yow mi présenté émission bi kenn dootu la laajte sama mbokk Serigne Gora yàgg naa ko topp ci ay émission euh, ak yi muy organisé maa ngi koy topp muy boroom xam-xam bu ma naw bu sell te li muy def xam na ko kon tey bu Serigne du xalaatee loolu jox la mbir nga coordonné ko pour ñu war fi waxtaane actualité boo xam ne mooy mbas mi ñëw ci réew mi ana naka la ko fajum cosaan gisee loolu yaakaar naa xalaat mënu ko gën a rëy kon xam naa li duuf ci nag wi yëpp xajul ci kaw gi dañu lay delloo kàddu gi di la xaaraat ci laaj yi man ak sëñ góora ba ci kanam baarakallaahu euh, professeur wax ji amna solo sëriñ góor kon ñu jublu ci waxtan yi rek laaj bi njëkk bi moy importance bi garab am ci l'islam lan la sëñ góor waaw El Hadj amana sax importance wala alaqa relation bi garab am ci l'islam japp na dafa nekk du début ba ci mujjutal ga maanaam ci tàmbali ba ba ci jeexital ba ci dund doomu aadama ndax daanaka yow rek sa ibbite gi mat na leeral nga ko ba yaakaar naa ni xëy na dañ koy faran fàcce gën ko leeral xam nga jiitu doomu aadama di ñëw ci kaw suuf wax nga ko sunu borom bu mu jëlee sunu maam aadama dëkkal ko ci biir àjjana ñaari mbir lako def te ñaar yoy ba tay moy dox ak nit moy digal ko ak tere ko digal ko ci garab tere ko ci garab wax nga ay bi waxulna ya adam uskun anta wa zawjuka janna wa kulla min arahdan haysu siqtuma wala taqraba هذه shajara فتكون من min alzalimin loolu leen di mooy fii yàgg sa soxna ci dal waaye nag nangeen ngeen lekk ko ndigal li njëkk li yàlla defal doomu aadama ci lislaam ci ci àdduna mooy daf ko njëkk a digal wa kulla mina raxdan haysu situma na nga lekk lu la soob rekk ci meññet yi ci xéwal yi waaye nag kon ndigal bi njëkk mooy daf ko digal ci garab xam ma ndax yaa ngi comprendre li ma wax mu yegg ci bi mu ko digalee war ko tere ne ko wala taqraba shajara kon daal di jël nag ci garab ya fa nekk ak meññeenteef yeeg fooy teef yeeg yépp ne ko bii nag bul ko laal kon alaaqa bi garab am ci nit ci lislaam day loo xam ni lu jiitu la lu yàgg la lu fi sax la te luy ànd ak moom di wéy la moo tax nga gis ni kon doomu aadama ndigalam lu njëkk ci mu war ko jëfe mooy dañ na ko na nga lekk nangam liñ ko njëkk a tere mooy na nga ne ko na nga bàyyi nangam ci garab kon nit bu xelloo tuuti war na xam ni tàmbaleem ak jeexitalam lépp ci garab la waaye yamul foofu bi nga xamante ni nii la sunu maam aadama ñu wax loolu xam nañ ni dañoo am noon ci kaw suuf amoon ko foofu ca àjjana muy seytaan seytaane daal di jaxa jax jaxa jax jaxal sunu maam aadama ngir lan si jax-jaxal bi nag da ko nax ci ñaar yoo xam ni bëgg nga ko ma bëgg ko sama kilifa gi toog bëgg ko muy dund gu ànd ak wérte bañ a am dee ak nguur gu yaatu waaye ci lan la ko digee ci garab lan nga ciy jàngat dangay jàngat ni ndekete nit ci bi muy nekk àjjana li mu yaakaaroon ni su ko lekkee dana dund su ko lekkee du dee su ko lekkee dana fi sax garab la fa waswasa ilayhi sheytaan xaala yaa aadamu hal aduluka ala shajarati xuldi wa mulki laa yablaa ndax duma la tegtal garab goo xam ni soo ko toppee garab goo xamante ni nii dana tax nga sax dana sax nga tax nga dund dana tax nga wér ak nguur goo xam ni dootul jeex gu yaatu ci xéwal ak ci fasak ci lépp seytaane gannaaw bi sunu boroom digalee li ma bëgg mooy danga ma laaj wax bu am solo lislaam nit garab alaaqa bi dox bay na yooyu day alaaqa boo xam ni xadimatun la waaye abadiyun dafa jiitu waaye sax ci naka dangay xool ndax li nga wax ne yàlla saa yu waxee rek day tudd ne nañu xalaat yàlla njëkk na la digal ci garab ci garab mhm. baatu garab njëkk na la tere ci garab ci sa dund waaye seytaan mi mu la boolee ci kaw suuf bi mu la bëggee daan daf laa daan ci garab jax-jaxal la waaye ci jax-jaxal bi nag daf la ceewan loo xam ni sëriñ bi wax na ko sànq ne daray médecine mënta jàll garab ci jamono juñ mën a toll sunu maam aadama ca biir àjjana lépp am ko garab lañ ko wax ni ko boo ko jëfandikoo danga wér danga gudd fan da nga am jàmm kon danga am laa sante danga am bien-être da am aafiya ci sa dund lépp loolu itam yamu ca kon nga gis ni bi mu nekkee àjjana biñ ko digalee biñ ko teree bi bi seytaane xamee ni kii war warta nekk fii te war na ko wàcce ci kaw suuf waaye fekk lépp namm namm sunu borom la moom bi mu ko jax-jaxalee nag ba ñu jëfandikoo yan leen tere woon euh, histoire bu yaatu la yàlla wàcce leen ci kaw suuf foofu am naa fi question kon sunu borom nammut àdduna jag de namm ko namm na ko ndax ñàkk namm gi mooy sunu borom xam ne ne àdduna du kër guy jàkk ndax lu sanni ci ay nit la ñu togn ñu boyal len ca faw ñu fay ca coono wax ci seen dundu moo tax bi ñuy li nga wax dama am solo mënoo jak ndax lu jak du and xam nga aljana bañ fa nekké dañu fa nekko ak jam ak ak jak mais buñu ñu ci kaw suuf jaga di commencé ak ndax bi bi doomu di wacc ci kaw suuf yalla daf ko ak ay jiwu ak ay meññentef yoo xam ni daf ko wax ni ñëwal ci kaw suuf nga wàcc ci kaw suuf nga liggéey nga sonn ndax noflaay gi nga amoon nga amoon ko ci ñu joxoon la ko ci nga nekk ci dund ma tere ci garab digal la ci garab seytaane nax la ci garab léegi wàccal ci kaw suuf waaye yow ak garab doo leen tàqali ko moo tax soo demee ci téere boobu euh, masxuudi bind ñu koy wax muruju zahab dafay wax ni anna aadama لما غرج من الجنة وهبط إلى الأرض مع سلاسون عديبا مودعة أصناف الشمر منحشرة لها قشر وعشرة لها نوات وعشرة ليس لها قشر ولا نوات كتفاح من بدوم آدم دي واتشي كوسوف sunu borom daf ko indiwaale ak fanweeri jiw yoo xam ne su ma la wax ay bànkaasu garab benn bu ci ne ñu def ci fukki jiw fukk bi njëkk ba dafa am dafa am dafa am xollit lu mel ni koko ka jawz beneen fukk ba dafa mel ni dafa am xoox ci biir lu mel ni zaytuun olive waaye beneen fukk ba nag amul xollit amul doom ñam rek la ko tufaax li mel ni pom ñu indi ko loolu te boo xoolee def nañ ci ay gëstu yaatu ci ci wax jooju ba gis ni meññanteef yépp ci xeetu espèce yooyu la génnee ak genre yooyu euh, kon bi nit ki wàccee ci kaw suuf ñu joxaale ko lu mu indaale yàlla wan ko ni doo doo doo noppalu ci kaw suuf waaye ñu déggee ci ndax importance su li nga ma laaj dafa am solo ñu déggee ci ni nga xam ni moom la nit amee alaaka relation ak garab ci lislaam dafa sax dafa yàgg te du dañ yàlla wax na ko ci noflaayam li nga wax ci noflaay noflaay gi ñaar la moom la sëñ Tuubaa digle mooy liggéey ak jaamu yàlla liggéey gi mu jox ko ay jiwu mu liggéey ak jaamu yàlla go xamni da fay ànd ak tarbiya sa ruh sa xol ci xam yàlla ci bëgg ko ci top ko bi mu ñëwee ci kaw suuf kon relation ma garab jeexut da wara bay pour dundé motax yàlla wax ni allazi jaala lakumul arda firasan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maan fa akhraja bihi min shamarati rizqan lakum mu jël asaman tàntal ñuko jël suuf lalal ñu ko wàcceel ñu ndox ci kaw ngir lan meññe di ak lu ñu nekk risqan lakum nag dafa yaatu mooy sol ci yére mooy faju ci mooy lekk ci mooy naan ci d'ailleurs doomu aadama amul lenn lu mu def loo xam ni génn na ci meññet du yére du fauteuil bi ñu toog du lekk du naan du lenn lu nit mën a def ci kaw suuf ba ci garab bi tubaab bi di jëfandikoo pour mu mën ko def faw mu dem ci garab moo xam ci matière bi lay doon moo xam ci lu tuuti mais faw garab kon alaaqa bi dox diggante garab ak nit ci lislaam lu yéeme la lu doy waar la lu war a tax nit ki xalaataat man damay wax ni garab war na bokk ci lu tax nit gëm yàlla warna tax ci lu tax nit gëna jaamu sunu borom subhanahu wa taala mais relation bobu élage xam nga biñ ko xolé ci borom xam-xamu julit ñi relation bi sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ak garab lu yàgg la yow xam nga ci lu bari wax na ni ne na ngeen teral sen sen bàjjan tàndarma defe naa dafa ne ak akrimu ammatakum naax la na ngeen ko teral na ngeen ko ji nangeen ko fonk indi nga ci ay wax yu am solo sànq waaye itam mu wax ni abatu sawda shifaaw li kulli daa abatu sawda day faj bépp xeetu tawaat kon nga gis ni nga wax ci jullit ñi fa ñu jaayante woon duma ci ñëwaat kon l'islam lu mu lu mu représenté garab lu mu représenté ci l'islam mën naa wax ni dafa essentiel dafa mënta ñàkk te jàpp naa ne sax garab est la base de toute chose ci diine l'islam ci gëleen diine gu mu mën a doon te kooku nangu ko waaye ci àdduna bii nga xam dañu toll ci modernité bay wax modernité ak traditionnel ak leneen parce que lépp rek moo ngi tënku ci garab garab googu mënta traditionnel daf laa accompagner pour toute ta vie ci àjjana ba fii ci kaw suuf nga xool tey Serigne Touba radiyallahu anhu dëkk bii moo tudd Touba Touba garab la ca ajjana ca firdaws te garab branche ya dem na ca ajjana yépp ñu siy dundee moo tax Touba tam loolu xëy na bis dinañ si waxtaan ni mu nekkee ci ci ci centre Sénégal ak tey jotaay bii ñu am ban leer ban lumière moo war a jaillir ci Touba mën a dem ci senegal ci ay bànqaas Sénégal yëpp dundee ko te muy jëriñu ñëpp ndax defe naa ni euh, Sëriñ Tuubaa dafa wax ni euh, wallaahu yansuru nii wala xalxu tatbau nii fil barri wal bahri za nafan bila dara boroom njariñ lu amut ak àndut ak benn lor loolu nag xëy na taxul thème bi jóg moo tax duñ ci dugg fi may fi may daanalee rek ci waxtaan wi wax na ni sax tey boo xoolee mom alaqa relation bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ci garab mom la Serigne Touba am ci garab bo xolé ci madlabul Fawzeyni ci yelen barab ci Touba ak ni fa Serigne bi nekké ak ay guuy ziar guuy yoy nekkon barab yo xamné soxna yu tedd yoy fa lañ da nek mu fay bind koku du relation bo xamné nit ki warna gis ne rek fi moy guuy ziar déedéet relation bi Serigne Touba amone ak garab. serigne Touba mooy Islam, mooy yonent bi salaay salaam euh, fi may fi may fi ma li wax mu encore moy defena sa wax na ni wajal ilahi maskani Touba abat misla ismiha bi jay ghayr man rabat waaw ndax dafa wax ni dama dama gëj yeur téré yi waye xamna ni wax na ni euh, na nga def sama dëkk bi di Touba men ni dom ba ca aljana ca yaatu

boo xamante bi maanaam mooy euh, laaj bu njëkk ci yow mooy garab gi sax ci réew mi garab gi nga xam dafa sax ci réew mi ak gi sax bitim réew kiy faju te nekk ci réew mi ci gan la gën a mën a jàkkoo fajoo ak gan moo gën ci moom euh, jërëjëf yaakaar naa professeur Gora liñ ko doon doyee matal na ko xanaa di nuyuwaat nag suñu mbokk journaliste yi ndax ñoom ñoom lañu la waroon njëkk a nuyu ndax ay soldaar lañ yoo xam ne eh, liggéey bu am solo la ñuy def di jaamu yàlla te ñooy tasaare xabaar yi kon ñu ngi leen di jaare ñoom ñëpp sëñ Malick eh, damay tënk rek ndax sëñ Gora wax na ko wax nga ko xam nga garab ak aadama alayhi salaatu wasalaam eh, bu ñu xoolee seen histoire iblis la muy seytaane ak aadam kii dañ ko defal mu lànk ne defuma kii ñu ne ko bul def mu def euh, ci tënk rek doomu aadama ba ñuy tën ci garab lañ lañ lañ tëraloon ba ñu ëffee ruu indi garab lañ ko moytuloo woon ba mu ñàkkee jëf ndigal yi ba ñu koy def punition di ko génne di ko génne fële biñ ko indee ci garab la daloon ndax ci histoire gis nañu ne ci aljana daaw ñoon gis seen awra waaye bi ñu ñëwee fii dañ ko commencé gis gis nañu ne feebar daaw leen dal ñëw nañ ci benn jóge nañ ci benn monde ñëwaat ci benn monde planète bi ñu ñëw commencé nañoo feebar li ñu njëkk a def mooy jël ay ay xobu garab di ko taf ci seen yaram yi pour mu fajal leen maladie dermatologie yi Yunus ci secret garab rek xam nga naajo yaa ngi ciy wax loo xam ne dafa yéeme sëñ Malick ku gëstu nga ndax xam nga naajo Yunus bi mu nekkee ci biir jën wi yaram wi dafa summeeku bi mu génnee nag yàlla def saxal naajo bi naajo dafay cicatriser yaram waaw dafay dolli milamine mi pune yi manqué et cetera et cetera du ma ci dugg ndax professeur a ngi fi euh, gis nga ne kon beneen xeetu xamin ci garab a ngi noonu bu ñu war a mën a bàyyi xel te du moom rekk yeneen ak yeneen ak yeneen li nga laaj nag te comme ci temps la ñuy dox xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nit ku ne gox ba mu dëkk juddoo fa yaroo fa di noyyi ca aanoor ba foofa lay garabam nekk Serigne Saliou yal na yàlla yokk leeram mas na wax ne nit day fa mu ganee àddina juddoo fa yaroo fa ba màgge fa su tukki woon feebar bu dellusee ca dëkk ba summeeku xalangu ca suuf sa bu feebar bi doon téeméer juróom-ñeent fukki yi day dañ te loolu expérience la na ko nit ñi dem wër yi kon ñun Afrique dafa am lu ñu xaw a dal muy dañu takk suñuy bët ngalaab suñu gémmiñ bañ nu xooloo fi nu bëgg a xool wala li ñu war a xool ndax soo seetloo sëñ malik Afrique mooy solution bi du leneen ñi ngi sonn ci diine fenn fu nañu fay wëri ñan ñooñu gën ay mag ñan ñooñu gën ay mag doo ko wax cheikh ahmadou bamba mi waral tay jotay bi mhm. sëtam bi dajale fi mom mhm. rek suma ko tuddé yóbbaale naa géew dafa doy référence mhm. ci adina bi ci limu def ci l'islam tay der bu ñuul ñun kay ño wara xolaat suñu bop ndax yakarna bang koy wax man nak duma ab kat fa laysa yujibu siwadul jismi safahatal fata wa suhal fahmi kon ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp. bañ a xeeb suñu bopp. xam li ñu am mooy lan ndax sañ góor a sañ Malick. tubaab yi dañu échec. te dinañ ci ñëw feeñ na ci mbas mii di coronavirus bi dinañ ci ñëw waaye rek damay bañ a taañaañal te bëgguma la jiitu. question bi euh, xam nga tey laaj bi nga laaj. Mm-hmm. sëñ Malick. sëñ góor a bari na tey ku feebare fii ñu jël la yóbbu la France walla Amérique walla Maroc mais bu ñuy ñëw ci ay kees lañ lay indee. lu ko waral. ndax garab yi ñuy faje donte garab yépp garab la xam nga wax nga ko sàng garabu olof amul garabu naar amul garabu séeréer amul garab rekk moo am. niñ koy jëfandikoo fii boo demee Brésil nañ la ko fay jëfandikoo seen pharmacopée ñoo fa ëpp soo demee tey ci dëkku asiatique yi muy chinois yi da ngay gis ne ñoom egg nañ ci sax bu ñuy tabax benn hôpital dañuy def département moderne def département traditionnel ndax dañu ne nit ki li dal xelam moo koy faj waaye nit kii tamit li gën a jege ci cosaanam gën ko jege moo koy faj kon complexe bi ñu am ci tubaab yi te yaa ma gën a jàng xam nga ne industrie yi tey yi yi nekk ci àddina bi euh, boo gisee mbir mi ñu ñu ñu ñu tànc ko ba bëgguñu mu dem mooy industrie yi yi defar arme moo am nga xam ne fetal la ñuy liggéey di reyante guddi ak bëccëg industrie yi miin yi ñëw di defar ay pétrole or yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen troisième industrie bi ñëw di industrie pharmaceutique ñoom nag dañoo toll ci jamono joo xam ne dañu mënatul a dem ndax gis nañu ne parmi les médicaments yu ñuy liggéey yëpp quatre-vingt-dix pour cent amatul solution kon ñetti or yi ñoo am or noir bi or bu jaune bi ak or vert kon dañuy delu suwat ci gantax gi euh, man munuma munuma nangu te kep kuy kat ci yéen ni waro meuna xalat re war mbass war na meuna am ñun ñuy jeli garab gu ñuy Madagaskar, Madagascar ci Madagascar mhm. di ko indil Senegal, ñu dajele ay borom xam-xam ñom ñuy geustu ci lolu te ana naka lañ ko defee dañoo tànn benn groupe yow xam nga liir nga ci lu bari ñu ne xam nga mbas mi bi mu ñëwee rek dañu départ dañoo bañoon man nag xam naa samay débat du xaw a neex ndax fi may jëm mooy dëgg gi rek laay wax bi ñu demee ba maanaam niwaakinin bi chloroquine bi dijee def ci lim ci def te gaa yu bari di ko xeex te du moom rek am na ñu ko jiitu woon def sax ci plante ñu xeex ba rey leen far bu ko jaroon dinaa ko wax léegi bi ñu ñëwee ba découvrir ñu xool ne artemisia li ko taxoon a jóg mooy paludisme parce que dafa am malaria léegi ñu xool ni wàkkinin bi fa mu jaar xale congolais bi ñëwoon Sénégal ñu exilé ko yóbbu ko fële ba mu dem Madagascar ba ñu def expérience ci wàllu artemisia bi xam nga sëñ góor xam nga ne artificiel dafa am xeet yu bare bari fam am waa am yeneen ak yeneen am na boo xam ne day law am na boo xam ne comme mbanta maare la tollu ñoom bi ñu defee expérience ba gis ne am na solution ana lan ñoo ñu waroon sëñ Malick ñun suñu gëstukatu Sénégal yi ñu woo sëñ Gora Seye woo sëñ Malick woo sëñ moo Gueye woo sëñ Imam Cheikh woo keneen ak xeneen ñu leen ah ñun kat ndax Chine noonu la defan ah. Chine bi affaire bi amee rek dañoo dal di woo seen fajkatu cosaanu démb ñu ne leen kat mbas am na nañu xool ci seen suñu garabu réew mi lan moo ciy solution jël nañ artemisia mais am nañ yeneen garab yu ñu jël artemisia affaire u Covid taxu ko woon jóg affaire u pali moo ko taxoon jóg donte am na ay substance ci maladie infectieuse yi day faj leneen ak leneen ñun kay li ñu waroon a def mooy gëstu ci suñu garabu réew mii te wax naa leen ko dinaa leen ko waxaat gis nga sañ maalik artemisia boobu ñuy taw dibbutoo na ko gën a efficace junni yoon ci substance yu ñuy wut ci artemisia yu ko gën mi ngi ci dibbutoon bi ma koy wax ba léegi kenn du ko weddi kon laaj bi nga laaj pour tontu la ci tënk rek ndax ci temps nga nekk junni yoon la garabu réew mi gën ko garab ya ñuy jëggaani parce que ñun suñu garab yi fii la nekk garab yi ñuy faj mi ngi fii ci réew mi kon xamna ne comme baña guddal xeyna na na yenen laaj yoy laaj dama lay delo kaddu gi. fofu euh yeen ñaar la ku nek la ci laaj ndax importance bi wax ji am solo goro fi euh seigne Modou danelé fofu la bëgg nga addo ko parce que dañu gis réew mi complexe bi am ci réew mi moy kenn warantuwu ne fi di Sénégal ay borom xam-xam fi nek ño xamanteni bi Euh, ñëpp maasu maasiwuñ yem nag ndax faj bu ci ndono gi baaxee itam njàng gi moo ci ëpp solo léegi lu waral ñoom ñu maanu ci ñi nga xam ne ñooy fajkat yi bañ leen dugal ci programme bi loolu laaj la boo xam ne bi dafa jékki-jékki ñëw sama xel buñ ci paree nag ma dugal yow ci laaj bi nga xamante mooy maanaam nan la ñuy def ba mbas mi ñu saafarawoo ci kon laaj bi na ñëw mu rapide rek ñu daal di dem ci waaw li nga wax mooy su fekkee dégg naa waxtu bu baax mooy li tax mbir mi boolewuñ ci ñi nga xam ne dañuy faj ci plante xam nga sax dañuy wax fajkatu cosaan wala médecine traditionnelle wala tradipraticien ñëwal foofu détaillé ma foofu lu waral waaw li ko waral mooy sëñ Modou ku ku gëstu ku xam àdduna nu muy doxee la dafa lax dafa am ay industrie yu fi am <clears throat> industrie pharmaceutique bu France li ko garab paracétamol di jox ak yeneen garab bu sunu or du ko jox kon pour nga mën a fexe sag njaay dox su fekkee ni amoo benn tawxiit faw njaayu jàmbur nga xëpp sa suuf noonu laa la ko mën a waxee li ko waral mooy li njëkk a def mooy dañ naan la médecine traditionnelle amul amul. baat bi sabotage la rek. baat bi sabotage la. praticien sabotage la. dafa am loo xam ne dafa yàgg lu ñu naan phytothérapie soo demee ci grec yi phyto baatu grec la phyto mooy plante phyto mooy garab thérapie mooy faju se soigner par les plantes la phytothérapie sëñ Modou Gueye mii phytothérapeute la waaye du cosaan ci gàncax lay faj nit mu wér ci kàttanu sunu borom kon léegi nag soo bëggee ñàkkal fayda benn mbir foo nga gàkkal ko utal ko tur bu ko étiqueté man bu nit ñëwee na ma sëñ a fajkatu casaan ma la man dèjà waxuma la sax ci yeleen yi may yëngu waaye man phytothérapie lay def te phytothérapie boobu boo demee ci chinois yi ni ko sëriñ bi waxee soo duggee seen hôpital dañ naan la fii phytothérapie plante yaa ngi nii produit chimique a ngi nii parce que garab yi ñuy fajoo ñu koy wax la médecine conventionnelle médecine conventionnelle mooy médecine boo xam ne ñoo xam ne am nañ seen doole bëgg liggéey ay milliards ñu ne ñun kat nii lañ xalaatee ne lay doxee lenn lu jóge feleen fi nag war a yàq suñu milliards yi faw ñu takkal ko suuf bu dee yenn dëkk yi ñu tëj la waaye bu dee Chine duñu la tëj bu dee dëkk Australie am na marché boo xam ne yaa a un million de plantes ci marché ba soo demee Amérique am na ay shop shop herbs dem naa fa soo demee soo bëggee gang boo bëggee dimb boo bëggee dib doon loo bëgg ci garab ñu wan la ko les américains wax la la may faj. defal la sab reen ñom sax nanguwuñu nga def ko ci ay sachet muy rafet ab dañ la koy defal ne la boo nga jam nga nga nga nan les américains ñoo ngi tudd shop herbs wala herbs shop manam boutique bo xamne ay ganchax lay jaay yuy faj bo ñewé ñom ñoo lay wax ni li ak li mo ci nek dana la dimbali ci li ak li rew yi melni suñu rew nga xam dañ nan tradi praticien nangam nangam pajkatu ciosan man nanguna. bu dee cosaan mooy koo xam ni day def ay njabar wala ay xàmb ci faj ci tëpp deret ok mais munoo fekk kuy def plante yow mii médecin boo taxawee plante ba mu wax la lay faj wax la na muy fajee yow moomu mun na la cee faj yow faj ci sa morom te yow munoo ko ëpp xam-xam munoo ko ëpp gëstu parce que Sénégal li ñu xam université benn barab la bu ay nit nekk di jàng loolu mooy université yow El ñuy joxe ay diplôme di joxe ay diplôme yow boo duggee ci àll bi wala nga saxal say garab di ci gëstu di ci bind dangaa ngaa nag garab li ñuy fajoo dafa demoon ñi ko ñi ko génne soo demee ci kuñ naan Ibn Sina nga xam ni moom la wax Avicenne li mu wax ci plante li mu wax ci faj faj ay buur ba fi mu nii médecine bi li muy fajoo ci xam-xamam lañ ko jëlee te ci ay plante la lan faj kon ci tënk loolu ñuy wax tradipraticien boole nañ leen ci du leen ci boole parce que boudé lu traditionnel la mom àndut ak lu moderne waye wax naa la ne la garab ak nit dañoo ànd ci 60 ba légui kon lu traditionnel mënta am fofu donc phytothérapie lañu wara war a ci paj mi te dinaa la wax beneen affaire fièvre bi am ñom ay molécule lañuy ñuy lan moy molécule. ay molécule ay xétu par exemple atome yo xamni dañ naan molécule sàngam dafa am principe nàngam lii lay def molécule yooyu am na si yoo xam ne dina nekk ci plante yi am na bépp molécule boo gis ñoom am na ci plante ñoom seen molécule c'est des molécules synthétisées waaye nag artificielle du nekk dëgg-dëgg baax bi matière bi cosaan bi ci baaxaay bi c'est artificiel c'est chimique day rey day yàq day gaañ te du faj day day day day day gëmmal loolu mooy produit bo xamanteni ni c'est artificiel molecule yoyu amna ci si yi ben molecule feebar bi ak médecin monde bu meuna tok pour wala ni Sénégal amna ñu geustu bind xam te bo demoon Amérique dañ lay tok ñu la ana lan nga xam prouver ma li américain motax ñu dem. du la laaj loo jang dedet mm. mais mais li nga xam soko jangul won do ko xam wa nak nekkul ne. faw diw jox la diplôme ba nit ki dafa war a pratique dafa war a jëf boo gisee yoonu murit dem dañuy jëf rek waaye nit ki li mu jëf su ko xamu woon du ko def kon nag nit ki bu jëfee dara fekk xam na ko bul ko laaj noo def ba xam ko da nga ko war a laaj jëf gii nu mu rafetee nga wax ko ci loolu nga félicité ko ci c'est ça le problème donc donc fi may ñëwee hmm. euh, parce que dafa am yoo xam ne malheureusement nag dafa soof maanaam wax naa la feebar bi ben produit garab médicament diko ko faj benn garab bini ñuy jaay nga xamni moy garab yu ñuy wax moderne mënu ko faj c'est impossible parce que fièvre bi dafa laaj plusieurs molécules pour mu mëna a faj nit ay molécules yu bari té ñom ben molécule lañ mëna jël def ko ci légui nak bo garap, ci garab ben garab di nga gis ben garab mu boole melucil yu baree baree bare di nga gis benn garab bu am acide palmitique am acide stéarique am acide bétulinique am acide béhénique am acide arachidonique am acide arginine ci benn garab garab yooyee nga jël ci benn xob xob boobu lii ñu ne la acide arginine la am boo xoolee Sëñ Tuubaa dafay wax ni ci bi muy tënk ngir nit ñi faju ci garab dafay wax ni balla coro baax na balla coro wax la balla gi ñii nee nañ mooy mbal ñii neen mooy buy laam gi lay duur lëng boo demee ba ci coro garat waaw loolu ci ay tënkam la woon. ci ay tënkam kon dalay wax ni lay duur mbal rat baax na moom daan na digal nit ñi di ci faju boo demee ci garab bu mel ni bu mel ni rat nga xam ni yaa ngi koy romb ci àll bi li ci nekk ci ay acide acide gallique acide arginine acide arginine boobu nekk ci ci li nga xamante ni moom mooy mooy rat nga xam ne ñoo ngi koy wax combretinum glitinosome mooy non scientifique bu pour waxaat la ne la garabu olof amul ndax làq garab garab dafa am dafa am turam boo xam ne boo demee ba Chine boo ko laajtee wax ko soo demee ba sëñ boo laajtee artemisia boo laajtee combretinum glitinosome boo laajtee Cordella pinnata non scientifique bi. laajte muy non scientifique xam nañ ko donc rat boobu dafa am acide arginine. acide arginine boobu feebar bii am nga xam ni parce que feebar bi wax naa la ne la benn molécule du ko faj dana jàpp tànk dana jàpp xëtër dana jàpp dënn dana jàpp ba mais maladie infectieuse la boo xam ne respiratoire di am ay détresse respiration waxuma la baax gi mu baax moom rat ci wàllu goow mais acide arginine bi ci am maanaam dafay dimbali nit ki ci infection pulmonaire bi muy am ci virus. bu mu mën a doon mu faat ko. kon professeur su ma la da nga joxoñ rat ne mën naa fa jàngoro bi. su fekkee danga nga nekk gëstukat dooy dóor ci dara wax ko sànni ko noonu dama la wax ne la chloroquine bii ñuy wax xam nga fajul dara chloroquine non xam nga de ba tey sax tubaab yi ndax nañu ñu jël chloroquine chloroquine fajul bu chloroquine doon faj kon ñi feebar wér te duñ dee en réalité c'est ça amna garab yo xamanteni bu la nexé ma wax lako ñaari façon garab yo xamni ci Sénégal buñ ko utiliser parce que fièvre bi lan la il faut nga renforcer système immunitaire mag bi nga xamni màgget na ki nga xamni da fièvre ku màgget sax te dëgër du ko ray ki nga xamni da fièvre feebar lool lu mat fukki at ñaar fukki at am les maladies chroniques les maladies cardiovasculaires bu yàgg mo xam dafa am diabète fukki at dafa am tension fukki at dafa am cancer bu chronique dafa am asthme bu chronique nek mag koku febar bi mën nako ko agagal kon koku lan ngay def moy booster système immunitaire bi moy yokku parce que doomu adama bul fàtte ni garab yi ni defar yalla daf ñoo préparer sunu yaram luy defar ay garab di ray doomu jangaro jojé ñukay wax ay globule blanc wala ay lymphocyte wala ay leucocyte mo xam noko ko bo jëlé garab bi, ci pour wax la de faj bi du ben faj waaye nak ben garab di nga gis ben garab bu meuna a faj bi parce que fay renfermer plusieurs molécules à la fois fay jël ñambaas mom genn garab gi ay molécules ay principes actifs ay acides yu wuté te bokul ci benn garab té meuna a xam nañ ko geussu nañ ci bind nañ ko kon feebar bi pour faj ko lan la laaj moy dafa laaj nit ki nga jox nit ki lu ko yokk kàttanam yaram bi nga renforcer ko belen bi moy ki mu dal ba pare parce que ki mu dalagul nga renforcer soldats la yaramam bu ko dalee da koy faxas dafay mel ni mattum mbelantaana ko gëna a dëgër da koy faxas mu jall ñak luma ma ñak luma fayda feebar bi mais il faut les dire dire les choses telles qu'elles sont li moy dëgg manam tay, am nak ko xamni ni bu ko dalee mën na ko gaañ nga prévoir ko ci bu ko dalé rat gi mala wax rat tu ma la wax artemisia li señ bi wax dëgg la de artemisia garab yi ko ëpp doole Sénégal mu ngi fi yu ko ëpp ay principe actif mu ngi fi ay garab yoo xam ne day am ay sesquiterpène ay antivirus antibactérien am ay flavonoïde am ay tanin loo xam ni dëgg-dëgg ay molécule la yoo xam ne dafa baax ci doomu aadama ci faj ko ci feebar bi kon ci tënk fe garab boobu ñuy wax euh, eucalyptus nit ñi wax nañ ko tey màggal gaa ngi ñëw. eucalyptus mooy ci olof ñuy dégg xottu biteel xottu biteel boobu. bu nit ki doon jël euh, juróom fanweer wala 66 feuilles ci gën tënk koo xam ne mu kàllaf bu dëgër la mu di ko xooj ci ndox mu tàng wala mu jël benn castorol ah teg ko ca tàngal ndox bàyyi ko mu jël ko ndànk. infusé infusé ko ndànk su ko infusé ndànk mu di ko naan di ko naan di ko naan di ko naan parce que. mën nga ko naan téeméeri at du la def dara soo xamee noo koy naanee xam dosage su ko naanee loolu dafa am benn molécule bu ci nekk molécule boo xam ne moo ngi tudd C10H18O c'est-à-dire parce que li may laaj molécule ay carbone la ak ay di ay ay oxygène ak ay hydrogène loolu mooy molécule C10 comme carbone H18 hydrogène ak ay O nangam pour les oxygènes loolu mooy tënk maanaam dafa nekk ay. ay ay mbindeefal la yoo xam ni dafay am jeexital ci yaramu doomu aadama bi dafay renforcer par exemple le eucalyptus li tax mu tudd ko dafa am benn ferñeent dafa am benn principe actif dafa am benn molécule bu tudd eucalyptol eucalyptol boobu xam nga lu muy def bu duggee ci doomu aadama bi li koy njëkk a def mooy dafay dugg renforcer système nerveux bi système immunitaire bi ci lan ci dolel soldaar ya moo nga melni dafa am guerre xex bu metti nga dem Mali ak Éthiopie Sénégal di xex ñu renforcer ay soldats ñu koy renforcer parce que yaram bi fay liggéey ci timis bi ay soldats, ay globules blancs ci yax ya ñu jog yax bu jogé nak blancs yoyu mom lañu wax ay lymphocyte T dafa am lymphocyte B am lymphocyte T ay blancs la yo xamni dañuy faat dañuy xex dañuy préparer day gis doomu jangara ju dugg ci yaram bi virus bi nga xamni ni dafa wutoog microbe parce que virus il faut faire très attention virus bi ak virus coronavirus bi ak virus coronavirus bu Chine ak virus coronavirus bu Afrique ak virus bi dugg sa yaram te yalla bu mu ci dugg ak bi dugg sa yaram te mu bañ ci dugg xétu virus yo yépp virus la tudd waaye bokkuñu dama la wax li tax ki yor caabi sa caabi auto caabi auto kilifa gu tedd gi toog ak sama caabi auto luñ tuddu ay caabi c'est des clés virus ay caabi la day tijji lu may tëjee ay cellules cellules yooyu dafa am ay bunt mais est-ce cellule bi sama cellule man ak sa cellule donte ay caabi lañ di nga dem tijjee ko sa oto non moo tax virus bi non seulement dafay muté muy virus bi dafay soppeeku dafay jaxasoo maanaam benn tubaab ci kaw suuf mënu laa wax ni virus bi peek naa ko ndax bu ñuulee fii bu subaa day vert ci kee kii daa feebar kii day lekk mango kii day lekk ceeb kii day naan sàngara virus boobee dafay muté dafay soppeeku dafay wëlbatiku ci ay yeneen xeet bu ko defee nag eucalyptus boobu nag li tax mu baax gannaaw virus bi dina indi benn garab ne woo koy faj dana faj fukki nit du faj leen fukki nit yi parce que dafay soppeeku. parce que màcc kakkatar la. waaw nit la. Mhm. buy soppeeku. su mhm. duggee nag ci nit. Mhm. eucalyptus yi eucalyptal boobu ci nekk. dafay fëgg dafay booster dafay may doole lymphocytes T yooyu nga xam ne ñoom ay jàmbaar lañ. dañuy wër doomu jàngoro ji xàmme ko rey ko bàyyi yi nga xam ne ay cellule la yu wér yu baax ci yaram bi yuy dimbali yaram bi ñu bàyyi ko mu dund bu dee molécule tubaab bi day fekk cellule boobu nga xam ne day dañ kaa infecté cellule boobu nga xam ne virus bi tijji na caabi ba dugg ci këram ba jël appareil am moo xam ne nit dugg ci kër wala ci avion jël appareil te avion ba di ko dawal uleeg mu wàcce ko aéroport mu dem dóor ci bomb feneen virus bi bu duggee foofu lymphocyte yooyu ak ak li nga xam mooy globule blanc yi dañ koy xam ràññe ko ci eucalyptol bi ndax dafay yokk lymphocyte T yooyu daal di rey loolu nga xam ni mooy doomu jàngoro bii infecté cellule bi daal di bàyyi beleen doomu jàngoro bi léegi nag molécule tubaab yi dafay jur dafay jur molécule tubaab yi su ñëwee uleeg mu rey بفيبر بي داي بولا راي بفيبر اك راي بيغا خامني دارا جوتو كوتي دا لا ورا ديمبالي موتاخ او فور اي ا مزور لوي غنا ديم دي نان اي غراب توباب غراب توباب لنجكو تودي دونت سي شيميك برودوي شيميك بوبو داي راي سي سيستم نيرف نداخ سيلول اك غلو بي ليغا خام نيو لا دون ديفاندر داف لين نيوال دوله نيوال دوله سيلولي نيت كي بو بوبا موتاخ كي لا داك نان غراب توباب بولا فيبر بي دوغي مونا غنا غاوا فيبر باسكو سيلول سايم ييب molécule yu mu daan naan reyaale nañ ko ba nga xam ne nit ki mënta dem donc ci tënk sëriñ bi bu nit ñi ñëw màggal Touba nañuy naan naan lan nañuy infuser xottu biteel ndax lan mu dollu leen ay défense dollu leen ay soldaar mhm. waaye itam mhm. nañuy jël rat ndax Serigne Touba moo ne balla coro baax na raagi mun a rat la rat boobu daa am acide arginine mhm. acide arginine même koo amee infection pulmonaire mhm. wala nga am pneumonie mhm. wala nga am ay toux yu metti dafa am acide arginine molécule boo xam ne dafay dimbali loolu songu doomu jàngoro ji rey ko ci lu gaaw te rat la tudd te moo ngi ci àll bii nga di ko gis foo mën a toll baarakallaahu euh, euh, professeur li nga xam naa temps bi la ñuy calculer kon lii mën naa gën a yaatu am na solo lool Euh, loolu nga wax ci Serigne Touba ay tënkam la Seexul Xadim gis nga ko ci njàngaleem dangay dégg mu ne ñaari raay yi ñoo gën nuun <laughs> ñaari raay yi ñoo gën nuun gi ñaari raay yi mooy lan dernier mooy yi lay wax mooy raaga poobar jar kaani nee na ñaari raay yi ñoo gën nuun gi kon gis nga ko foofu ci euh, kiyam Euh, sëñ Modou xam naa ci tënk nga ñëw ci fii mu daaneel rek foofu laa bëgg nga ñëw fi maanaam tawat bii nga xam ne mu ngi ci réew mi boo doon song ci garab yi nekk Sénégal ban ngay joxoñ askan bi. Euh, jërëjëf sëñ Malick xam naa professeur moom fi mu dugg doon na yaatu ci ñu am ci temps ba man ci xuus doonte nag jànguñu nasraan. waaye wax na mbirum diplôme américain yi ñoom xamuñu diplôme li ñu xam mooy xam-xam booy pratiquer suñu góor gu tedd gi xadimal mustafa maam Alaaji Malick maam Limaamu et tant d'autres yi ban diplôme la ñu am est-ce que dañu am doctorat bu ñu jé jógee Sorbonne wala ñu jógee ko beneen dëkk dama la naan déedéet te gis nañu ne arab yi sax ñoo leen raw kon al ilmu la bi kasrati euh xam nga virus eh, seigne malik ci mbas mi dañuy jàngataat la ko jitu peste amon na fi di epidemie bu doy war nomat am nyambal am Ebola am sida am te yooyu yëpp ay viris la te ñoom mën nañu defar antivirus waaye nag mënuñu éliminer virus soo xoolee feebar bu mel ni hépatite B xam nga viris la nga jàngat ci ñaari yëf rek jàngoro ji dañ leen ne mag ñi lay gën a faagaagal ci xale yi xam nga nit ki dafa am ay anticorps yu nekk ci moom ak ay globule rouge globule blanc ak yeneen ak yeneen euh, ci plante yi am ci ay complémentaires yoo xam ne ay ferñeent lañ yoo xam ne bu ñu ñëwee mooy dimbale jàngoro ji gis nga ne hépatite pay hépatite B tey mag mi am soixante-dix ans mënu ko tëral lan moo ko waral virus bi su jógee ba yeewu anticorps yi ki dem am soixante-dix ans dafay lekk virus bi du évoluer fee nag mag mi virus bi bu jógee mag mi amul anticorps yu ko résister moo waral muy lor mag ñi ci laaj bi nga laaj xam nga ñoom def nañ ko parce que dara dara umpewul rat bi nga wax boole nañ ko ci programme bi boole ko ak artemisia ngeer bol nañ ko ci programme bi ak artemisia euh, débutone bol nañ ko ci programme bi ak artemisia mais yoy yep dañu jëli artemisia muy bass bi ñu lenen. leneen loolu it ba légui tatoné la parce que dafa amone yoon wu gëna gaaw yoon woow ndax mu jangoro ji budé tang yaram bek yimuy joxé dem ba sekkat bek yooyu yëpp dafa am ay solution xam nga léegi wax nga rat wax nga xottu butéel ah, gis nga lay gis nga kadd gis nga ngeer yooyu yëpp ngay gis solution la kadd mm-hmm. layduur ngeer lëng yooyu yëpp ci maladie infectieuse yi la xam ne tey jii ki mu dal ba jàpp ko suñ ko composé woon tey jox ko ko mais fatt beeg li mu doon yàq ci poumon yi dafay dañ suñu problème ak ñoom te fi lañ toll xëy na sax dugal nañ ci nit ñi mais dugalin wa parce que dañoo tànn ay nit ñoo xam ne ñoom ñañu tànn ak ñi ñu waroon tànn du benn ñañu fa teg ak li ñu waroon régler du benn loolu nag man Malick am naa droit wax ko parce que dama jiite association boo xam ne état daf ko reconnaître depuis 2006 mu am récépissé ñëpp xam ko ci matuwaay yooyu nga xam ne ñoom nekk nañ ci mu jëm ci jàngoro yi xam nga limal naa la garab yooyu te yéen jàngkat yi xam ngeen ne virus ba départ Chine sàngaay ci histoire pangolin yi ak lam fa rafale la la muy rey États-Unis la muy rey Brésil la rey France la muy rey yeneen dëkk yi par rapport ak suñu fii du benn ndax xam nga ne virus tey soo gisee virus bu mel ni hépatite B di rey nit ki su nekkee ci deret ji dañ naa la positif na mi ngi ci deret ji ñu ne la bu amee six mois chronique na yeewul selon nag yow la ngay jëfandikoo ci niin wala say lekk et cetera yuy renforcer moom virus bi moo koy yee ba mu ñëw éliminer globules rouges ak yi ak anticorps yi ñëw placé wu ci fois bi virus tamit noonu la mel xam nga ne moom fu muy multiplier woo mooy fu sedd maanaam bu duggee glace wala mu dugg feneen day multiplier wu di jur ay milliards et mais tant que mi ngi ci air bi di ci tàngaay bi day gën a néew doole waaye du avancé bay rey li si gën a doy waar te ñu war ko jàngat ginnaaw bi nga xamee ne sensibiliser nañ nit ñi ba pare mooy sëñ maalik psychose bi nga xam ne moom la ñu installé ci boppu nit ñi xam nga yéen ñi jàng wàllu feebar xam ngeen ne feebar quatre-vingt-dix pour cent yëpp problème mu psychologie la am déet. waaw li ëpp jabet dañuy waaw. li ëpp ci doomu aadama yi. waaw lépp ci xel la. waaw lépp ci xel la. Hmm. tey jàngoro bi bu ñu dafa incurable maanaam du wér par exemple ma am ñu ne jabet du wér man ma amee jabet te ñu ne jabet du wér lan lay lan lay xalaat. xam naa sëñ Modou li nga bëgg temps bi may ñu ko kon mu mel nii. foofu dama lay dagg. waaw waa ji signalé na ma léegi ne léegi temps bi ki dañuy ñëw ci. waaw question bi da ngay ñëwaat. waaw léegi nañ ñëw ci matière de dosage maanaam dosage su garab ci plante lan la parce que dañuy gis ne mbokk yi euh, danoo yàpp ñi nga xamante bi ñooy def ñooy yëngu ci wàllu gàncax. boo waxee ñu ne waaw ñoom de duñ wax ne baaxut de xamu leen dosage mais duñ jox mukk ne garab gi ngay joxe baaxut mais danaan la. dosage dosage mooy lan sëñ góor yaa ngi ñëwaat may mu tuuti rek. xam nga dosage. Mhm. Euh, loo dosé wul sax mënoo ko jëfandikoo. jigéen ji togg añam moo xam ceebu jën la togg walla mbaxal dosé wu ko suuk xorom si dosé wul kaani gi buñ la ko tegalee doo ko doo ko lekk kon problème mu dosage c'est évident euh, lu jaadu la. nit lu mu mënta doose munu cee faj waru cee faj loolu d'accord naa ci waaye nag dosage u garab ki ko gëstu xam ko jàng ko gëstu ko kooku mën na la wax ni lii mooy dosé garab parce que garab dafa am lu tubaab naan toxicité looloo tax ñuy wax garab boo gis yoo la li si ëpp am na si garab yoo xam ne sax amul benn toxicité lii tax garab sax nga ki nga xam ne li tax ñi nga xam ne xamuñu garab te yëngu ci faj naan dañuy faj te yëngu ca def ay toj-toj mooy xamuñu sax lu géej gi di riir ñu sóobu ca biir géej ga kooku day lab labal ku mu àndal mais boo xamee ni par exemple boo amee deux cent quatre-vingt-dix virgule six milligrammes de nangam ci nangam à partir de nangam la toxicité di ñëw cest à dafa am garab yoo xam ne foo nga utiliser ci nangam nit ki soog a mën a feebar waaye lu weesu loolu moo ngi mel ni ki ne la mango dafa am do dafa laaj dosage boo jëlee màngo wala nga jël xaal di ko lekk di ko lekk di ko lekk di ko lekk te yamale woo ko mu daw sa biir wala mu indi ay jeexital moo ne day meñ meññeenteef la de pourtant garab la moo tax kiy wax garabu olof garabu nàngam da ngay bàyyi lekk ceeb bàyyi lekk xaal parce que ay garabu olof la <laughs> cere garabu olof la pour te dire que amul dosage mu ngi aju nga xam ci nangami gramme. wala nangami milligramme ci nit ku am nangami kilo wala am nangami at lii bu ko naanee dana toxique si moom dana jef jeexital ci rein bi dana jox ko insuffisance rénale mbaa mu def jeexital ca làngam loolu itam noonu la amee ndax ci garabu tubaab bi nga xam ne dafa am ay métaux am ay plomb ñëw déposé wu ci rein bi déposé ci fois bi yàq ko moo ci gën a gaaw dama la wax leen euh, am na yenn doom ñu ñuy jaay cent franc muy faj bopp bi metti Ben dom bobu mo gën ay mo moo graw nga jëloon tay ngeer mu bëri naanandoo donc dosage effectivement moy nit ki ñun xam nañ ñu doser garab mën nañ la wax garab sangam yemul ci dosage c'est l'art aussi de combiner les plantes le gis nga fajj art la fajj dessinateur bi du moy moy artiste bi wala waykat bi le véritable artiste artiste deug deug c'est l'art de combiner les plantes c'est le phytothérapeute ki nga xamni mën naa jël gàncax sànkam mu xam ne acide bi ci nekk gàncax bi acide bi ci nekk acide bi C nangam 10 plus H 18 plus C 24 plus H nangam boo ko boolee ah day jur nag danger mën naa jël ay garab man yoo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo keneen di ko jëfandikoo ma booleel la ko pour posé na ci nit moo ne garab yooyee benn bu ci nee boo ko séparé mu faj non seulement il faut nga xam yan garab ngay composé yan garab ñoo mën a ànd xam nga booy togg ceebu jën jël suukar jël lem jël kaani jël poobar def ci toggatoo il faut nga xam garab bii ban molécule moo ci nekk garab bii ban molécule moo ci nekk yow artiste li tax ma ne la artiste la di nga gis artiste boo xam ne day jël suuf bu weex ak suuf bu ñuul génne la ci couleur bu verte c'est l'art de combiner les plantes laar de créer l'art de penser laar de chercher les plantes plantes gis nga plante sëñ bi xamal la dafa neex xam-xam la mais du xam-xam bo xamni fo nga koy dundu di mos di nelaw ci wetam di xol amna na garab bo xamni dina duma tegalon ko wax fi suma la ko tegalon fi baxal ko nga xamni c'est des recherches gisuguma tubab bu ko bind mang koy bind sama livre bi nga xamni mang ko tuddeel véritable trésor plante bobu teg nako fi baxal nako ko teg naa fi toog ba ben heure xam plante bi dafay lan def réchauffement du plante dafay baxaatal boppam loolu subhanallah est-ce que tey ki dundut ak plante bi dëkk ak plante bi neew nelaw ak plante bi faju ci plante bi ñii ñuy wax ay comité ñu leen di woo parce que am na ñu fi nee def association oo xam ne da nga leen di woo xamuñu ñu ne la ah waxal plante day yàq reen nga la waaw gongo waxal plante dafa baaxul ci foie nga ne waaw gongo ki la koy def yëkkati paas la jox la yëfi ñàkk fayda yooyu ñàkk xam gu toll noonu ak xam-xam nee naa la Ibn Sina di Avicenne nga xam ne li mu xam ci plante da moo njëkk a gëstu ne benn plante benn mën na nekk góor fal nabtu waaxidu yajmahu fiihi zukuran wa unsa fa tatawalladu fiihi mu ne benn plante boo xam ne genn plante la ci benn plante bi mu góor ak jigéen waxuma la góor jigéen de benn plante boo xam dafa boole nekk góor nekk jigéen plante boobee bu góor bi di séeg bu jigen bi ñuy jur lolu Avicenne Ibn Sina moko wax leneen li mala meuna waxat ci dosage nit ki su fekke ni meunta doser garab war ta faj mo ngi ray nit ki su fekke xamul yam plante parce que dosage yamul parce que garab bi nga xamantene waxna la ko muy ngeer wala muy rat nga jël rat bo beugé rat bobu nga faj ci leneen nit bëgg jël beneen plante boole ko xamoo ñaari molécules yi est-ce que dañ def beneen beneen dinañ jur beneen jàngoro nga boole ko loolu mën na am problème am na leneen lu ñuy wax ci dosage ci ci garab yuy nëb tey dangaa jël benn garab euh, mu fermenté wu sànq si suñu waxtaan ci suuf yaa ngi ma koy laaj garab boobu nit ki dafa jël garab garab dosage u garab su normalee normalement soo ko deful ci frigo vingt quatre heures la garab war a am su passé vingt quatre heures bi garab gi moo bayyi principe actif am bayyi dolem bayyi fadjam fajam mais moo fermenté wu xamali tax da nga xas xas mi da am gom xas mi da am dakande xas mi da am momé boko nga def ko ci ndox gogo da fay fermenté dakande gogo day dem ba def jur ay champion jur ay microbe mu four mën na metti ni mbiru nit bu garab dosage bi infusion bi c'est vingt-quatre heures wala nga def ko au frigo à 48 heures wala mu nekk ci dëkk bu sedd lool mel ni France nga def ko à 72 heures waaye bu amee ñetti fan garab ga moo ngi mel ni tey ndawal lu bees ni mu gaawee fër ñi sant sàll ak ndawal lu am ñetti fan ni nga koy lekkee bokkul li ko waral mooy ferñeent ak jeexital yi nekk ci garab bi asalaamaaleykum. waaw xam naa àggaleel foofu comme ci wa tànk la ñu nekk ci waxtu. waaw. xam nga waxtu dafa dafa ñoo daf ñu xoj. parce que li ñu bëgg mu leer. waaw yoo xam ne dañ koy cof rek. waaye li ñu xam nga doomu aadama yi dañuy jaawale ñaar yu bokkul. yaa ngi ñëw ci problème dosage. waaw foofu laa jëm. voilà xam nga dosage. Mhm. ak composition duñu benn. ok. léegi nag seen problème mooy ñoom dosage dosage la ñuy wax te balaa ngay doser da ngay composer ba pare. <laughs> dëgg la composition moom la ñuy wax njafaan. gis nga médecine bi dafa dafa xam-xam la bu nit ñi jappé ne ñun ay jàngkatu alquran lañu dañuy suñu xasaay di dafa ñak fayda hippocrate bobu ngay wax mais moom mo créé ñaari médecine yépp lan moo tax logo bi ñuy def gën ba paré laxas bu gaay bu jaan laxasu ba ñuy xuppes di deub di essayer mais ci plante yi xas mi ak xob yi ak reen yi lañ doon xuppes dosage muy njafaan xam nga sañ góora xale bi juddu ànd ak waajuróom mu jigéen di di di di di di dund muy taxani di bojji di rooti di mooñ di ko wax ne ko nii ngay xorome nii ngay defee nii nii ngay defee nii ba mu màgg mata sëyi yow boo ko ne mënuloo togg xas nga ko suñu maam yi dañu daan dañoo xamoon doosaas xam molécule garab yi xam danger yi xam effet secondaire yi xam yi yaq ak yi dul yaq xam yi loré ak yi dul loré parce que garab xam nga né poisson mi ngi ci gasoil mi ngi ci lenen ak lenen mi ngi ci lolou nak ñom dañ ko mënon xajalé ba gann garab gu ci nek ñu ne ki kat dafa am toké bi amul toké ki ni nga ko wara jëlé ki ni ko wara jëlé ndax da nga daan gis bu ñëk bi kuddu amul dañ la daan wax am garab yo xamné soo koy jël dangay jël xottu gerte ndax dosage bi foofu la toll. lu mel ni wanq waaw. kenn ñi mu ko tudd kenn ñi mu ko tudd lu ci wala ñu ne la da jël doomu gàddarma walla ñu ne la da ngay jël ab cof walla ab nëq walla ab sëq. Seexul Xadiim foofu dafa wax ne. waaw nit ku nekk kenn ku nekk. waaw. sab loxo mooy sa nattukaay. mooy sa nattukaay. xam naa waxtu julli jot na. Eh. <laughs> te yaakaar naa ne euh, sëriñ bi dafa wax ne ñu julli ba noppi ñu continuer. ñu continuer waxtaan bi loolu may lii nii ndax dafa mel ne mënul gunoo dem de ndax fii ñu teg suñu tànk yi mënuñu foo génn. te ah, tànk kon kon kon macha allah asalaamaaleykum xam naa nga xam ne seen meen ak seen wextan foorul parce que soo xoolee garab bu mel ni nàndóob nga xam ne sunu waajur yi bu ñu daan dem tool dañ lay wax ne moytul garabu nandóob gi ndax soo ci tegee ndox mi une heure de temps ndox mi boo ko naanee day weex ba doo ko mën a naan waaw li nga xam ne keram rek day wexale boo ba doo ko mën a naan loolu boo ko jëlee reen bi nga sarse ci fukki reen jox ko nit yaa ko rey mook paftoon mook paftoon dañu am ay toxiques yu ci nekk kon am na garab yi nga xam ne te waaye nag garab ñu bàyyi xel tamit sëñ Malick bi la gën a lewet moo la dàq faj bi la gën a weex te ñu bari dañoo umpale lool garab bu la gën a lewet moo la gën a mën a faj ka bi gën a weex kon am na garab yoo xam ne mën nga leen jëm jël semaine am na garab yoo xam ne mën nga leen jël weer am na garab yoo xam ne ci mag ñi at ba at lañ leen daan jël kon ci dosage bi foofu laay yem ndax li ñu si bëgg wax yëpp ak li ñu si bëgg xëy na temps bi xaju si su ko defee nag xëy na comme dañuy mbartalu bu ñu ñëwaatee ci yenn wat matuwaay la nit ñi war a mën a jël ba màggale ci jàmm dem ci jàmm xam nga man dama defoon màggal gu njëkk gi benn annonce ci jute bi ma nekk ma ne après màggal zéro zéro corona yow wax loolu man maa wax loolu foo teg loolu dama xam ne rek am na matuwaay yoo xam ne buñ ko jëlee te bañ nu gëmloo yenn yi dinañ màggal fi ñun ñëpp ci jàmm te dara du xew garab gooy waxtaan la nit ñi di ko jëfandikoo wala waaw xam nga man yow gis nga suñu émission laaj bi rek gis nga ni mu cartonné ci àddina bi ay nit am nañ Covid jël ko gis résultat ak yeneen i garab yow yaa ñaata garab nga jàngale nit ñi jël ko woo ma ne ma Malick jël na jàngale na garab sàngam jariñu na ñaata garab la góor a jàngale muy noonu c'est-à-dire am na xeetu garab yi ba ci mbirum li ñuy wax savon yi ak yu demee noonu xam nga coow am na ci. tegal foofu sa baaroom. maa maa ngi ñëwaat léegi Serigne Gora euh, professeur euh, lan ngay digal nit ñi nga xam ne ndax bu ñu fàttali plante mën naa sécuriser gis nga antiseptique bi comme lii tubaab yi ñuy jox ñuy xëy jox suñu defe naa ci plante am na lu ko gën a garaaw ci plante. sëriñ bi voilà voilà loo xamante ne bii bu ko nit laalee. Mm. jàngoro du ko wàll nga xam ne fu mu mën a dem bu ko neexee bu ko laalee jàngoro du ko luy wàllee rek du ko wàll lu bari mais dafa am lu ma bëgg a indi mhm. euh, ndax sànq bu wax dosage mhm. dama bëgg ñu xam ne itam parce que dafa am lu nit bind ak lu naan oral di nga gis koo xam ne dafay faj mhm. mu ne daf ko jëlee ci baayam wala maamam xëy na sax léegi loolu jafe na waaye ci tënk rek sunu mag ña xamuñu woon acide sàngam am na wala acide sàngam waaye mooy li ma la wax daan nañ def ay recherche xam ko par exemple man su ma su ma mag bi waxee na ma lii dafa baax ci nàngam du ma ca yem damay xam lan moo tax mu baax ca léegi nag par exemple boo demee ci loolu ñu naan dimb mag ñi bu ñu mosaan gis koo xam ni dafay tox cigarette wala muy màndi dañ koy booleek sóoratu yaasin buñ tollee ci mu biin am yenn ca def boole kaag xasum dimb jamono yi ma nekk Cameroun ci xasum dimb muy cordi la pinata ñu def ci benn gëstu ak ay Ghanéens ñu gis ne xasum dimb dafa am benn acide boo xam ni moo ngi tudd acide nicotinamique dafa am nicotinamide ni ko nicotinamide boo xam ni day dindi kuy tox cigarette dépendance ci cigarette ba maanaam kii day tox day drogué wu su koy jëfandikoo boo xamee dosage am effectivement ndax ba tey yaa ngi ci dosage ki nga xam ni bu 5 heures jotee dafa daan jël benn dose am lu lu booy naan joint mu raab ko noonu lañ ko waxee tox ko yëg ne moo ngi feneen soo ko joxee xasum dimb bi nga xam dafa am nicotinamide am acide nicotinique nicotinique boobu nga xamante ni mooy tax nit ki am dépendance su ko naanee day mel ni ku jël doosam te du màndi te du dof te du tërëng te bu yàggee daf koy bàyyi loolool mag ñi daan dañ ko def ndax xamoon nañ dafa am acide boobu waaye si seen recherche sunu mag ñi ay gëstukat lañ woon si seen xam-xam demoon nañ ba xam ni lii ah seetlu nañ ni dana def nangam nangam ba am ci xam-xam xëy na sax bind ci waaye africain dafa bëgg nëbbu ah sëñ Modou Gueye mii moom baayam ak maamam li ñu xam dañu naan moom rek lañ bëgg mu xam ko ndax xëy na moo baax ca ca poos ba bëgguñu keneen xam ko waaye xam-xam a ngi fa loolu dama ko bëggoon préciser pour ñu ma bañ a wax ni rek euh, euh, dosage ñun ñi léegi ñoo ko xam nga njëkkoon xamuñu ko déedéet wala garab yi nangam déedéet ñoom xamoon nañ ko ci seen i pexe ci seen i natt ak seen i takk ndax mag ñi dañ daan natt bu ñu dem fenn di takk ni di jël ay ay alxuraan ni di jël hisib di xam ni fii ak fii nangami hisib la mooy nangami kilomètre léegi loolu yëpp ay takk la xëy na léegi organiser nañ ko ba nit ñi gën ko xam kon loolu dama ci bëggoon ñëw. faj science la euh, faj science euh, lu nit di dund la moo tax ñi nekk université wala ñeneen def botanique garab yi mun ñu si xam dara. parce que ki dëkk ak garab bi jox ko nit xam ne lii la joxaat ko nit kooku mooy ëpp expérience garab kon ci tënk leneen li nga ma doon laaj mu jëm ci nan la nit di def ba mucc ci feebar bi ci màggal gi balaa loolu damay fàttali ne jële nañ ci kilifa gi Cheikh Abdou Abdou Samad te fekk ne sax bis mës nañ gëstu lool ba ñu wax ni sëñ Touba ca njaareem jëmbatal na fa boppam garabu xay da ca toog di ci nekk ak fonk fonk goo xam ne bis dégg naa nit mës naa ñëw ci liñ ma xibaar daaj ci ab pont sëñ bi ne ko dafa mel ni pont bii sama jëmm ji nga ko daaj te wax nañ fa lay nekk ba ni muy duggaatee ci barabam yu tedd yooyu bay wuy ji boroomam muy xay xam nga man nit su ma xibaaree benn garab garab bu mu mën a doon automatiquement dinaa xam garab ba ci gëstu lan la nekk xay mooy xayaa sénégalensis noonu la tudd mooy non scientifique am di garab boo xam ni li mu mën a faj ñoo ngi wax doomu jàngoro ji li ñuy wax yëpp xayaa sénégalensis sama xel demu ci antiviral la antibactérien la bu mag

globule blanc yi leucocytes yi soldats yi soldats yi ndaw yooyu ñëw mu faagal soldats yu yu xaw a mag renfort di ñëw mais bu sol ko leucocytes ñëwee euh, lymphocytes yi globule blanc yi cellules yi nga xam dañ leen infecté dañ leen di jox signal pour cellule boobee te bokkoon ca xeex ba te dagg nañ tànkam virus bi jàpp na ko ñu jox ko signal mu rey boppam par autodestruction loolu mooy lan maanaam dañoo dem ab xeex xeex bu mag xeex bi ñun ñëpp ay soldaar lañ waaye ñun soldaar yi képp ki ci noon bi jàpp dagg suñuy tànk wala suñuy loxo wala faagaagal ñu ba infecté ñu ba du ñu mën a ti dem cellule yi nga xamante ni mooy ñi nga xam ni mooy général yi les lymphocytes T les lymphocytes B dañuy jox ay xibaar surtout acide stéarique boobu nekk ci xay da koy def mu mën a xibaar selil bële nga xam ni moom bu fekkee ni bàyyi nañ ko soldaaru ennemi ya jàpp ko noon ya yóbbu ko enquête ko xam na muy def dinañ ko mën a jël dem ca xëtër ba dem ca xool ba dem ca poumon ba rey ko cellules yooyu ñu jox leen programmation ñu rey leen par apoptose apoptose mooy autodestruction cellule bi ci boppam mooy yëg ni moom infecté na mu rey boppam par apoptose kooku mooy xaya sénégalensis mais dama lay wax leneen magal gi seigne touba defane ne limun nan dana wa daa wa munzil shifai wa dawa'i hmm kon dafa njëkkee ci amdan limun li dana wa daa kon dafa sant yàlla mi nga xamni tawajjune wàcce na ca la cey safara gis nga sunu jotaay bi dafa am solo am solo go xamni bu ko rew mi xamoon danañ am leneen nuñ ci taxawé moy tax gis naa ni bu ma gisee sëriñ bi dinaa ko wax lii daf ko war a am leneen lu mu ko def am naa ci ay xalaat ci bu ñuy waxtaan dafa ne moo ngi kon kon yàlla moom tawat ju mu wàcce wàcce na ak saafaraan fan la koy wàcce ci ay molécules chimique chimiques déedéet ci ay garab lu mel ni Haya sis lu mel ni Vernonia amygdalina lu mel ni euh, yeneen xeetu garab yi ma la wax combretinum glutinosum lu melni eucalyptus lu melni parkia bigelobosa dafa bëri bëri bëri bëri lu mu mën a ci ay virus lu melni la pinata le lu melni de la sénégalensis yoyu ay antiviral lañ antibactérien yu puissant yo xamni la nela acide stéarique bi nek ci xay ni muy virus yi kon kon magal gi si gannaaw bu ñu santee yàlla ci amdan li mun dili danaa i wa daa i ñu jël xay jëfandikoo ko waaye wax naa la ne sëñ Tuubaa dafa fonkoon rat ñu jël rat dafa am acide gallique antiviral la antibactérien la maanaam boole xay acide stéarique ak acide gallique mën nga leen boole mais ci dosage bu bu scientifique waaye li bëgg mooy nit ki na jëfandikoo xay waaye leneen ñi nga xam ne bëgg ñoo feebar li ma leen di boole bu ñu boolee ngeer mi sëriñ bi doon wax boole rat boole xottu biteel mën nañoo ànd xott biteel da nga ma doon wax sànq benn garab boo xam est-ce que nit mën na ko jël chaque jour sëñ bi sexaw liñ ko gën a xamee dañ koy ndékkee garab la wala du garab ñaata yoon nga koy naan par jour antiviral la il faut pas chercher de midi à 14 heures am na yeneen garab su ma ko waxoon nit ñi pour ñu uti garab ba day sori waaye li ma gën a digal nit ñi nag mooy ñuy jël xottu biteel ak rat di ko naan xottu biteel bi mën nañ ci jël tuuti boole kaak tuuti euh, ngeer sexew di ko ndékkee dafa neexa ah, jëlal tuuti sa xottu biteel tuuti sexew tuuti ngeer nga boole leen saa yoo xëyee suba na nga ci ndékki na ko suukar na nga ci def naana na nga ci def pasti bu la neexee nga naan ci ba sa biir fees su ngoonee balaa ngaa tëdd nga defaat ko da nga mucc ci virus bi parce que maa la booleel ay parce que bëgguma scientifiquement dafa am garab yoo xam ne su ma ko waxoon tellement dafa laaj dosage laaj xam-xam bëri acidité bëri toxisité damay wax ngeer moo xam ne léegi nga dem dagg ko fii wax la léegi xottu biteel ni mu yombee wax la léegi rat maanaam nit ku koy naan ci màggal gi def ko sa ndékki loolu dama koy wax ci xam-xam bu wér professeur bu ko neex ci àdduna la toog non seulement dina renforcer sa système immunitaire su fekkee ni feebar bi dal na la du la du dina ko balaa ngaa ñëw da nga wér waaye itam su fekkee ni dëgg-dëgg nag da nga ko jëfandikoo bala màggal gi yow da ngay am protection parce dama lay wax ne la plante yi dafa baax ci traitement ci day faj waaye préventif la dafay tax prévention li ma wax nag defuma ko pour ne daf koy faj damay wax ni ku jël xottu biteel ak sexew ak ngeer nga di ko utiliser léeg-léeg nga di ko def attaaya di ci def naana di nga màggal ci si jàmm ñibbi si si jàmm waaye nag bi jaahi muhammadin tabibina hakimi azka salaamay rabbana alkarimi ci li sëriñ tubaax ni yonent bi salaa sallam nga xam ne gi docteur

كن دولا وال تدو وال كن السلام عليكم ورحمه الله نياتا لا بوكاي ديف لوي نيكي لوي راخاس ساي لوخو لو تي تك سا گيمي لو تي تك سا بكان لو تي تك سا كنم لو تي تك واو ديغا مسا ديغا راخاس نوبي ديغا راخاس بارومي yow sëñ malik mi jang science xam nga ne fever, place yi muy gëna duggé yoy ci la bok soy raxas di nga raxas ba di nopp di nga ko raxas di nga raxas euh, gémmeñ gi di nga raxas te place bu ci nekk rek microbe man na fa duggé kon japp na ne japp juróomi waxtu rek dafa doyon muy sel ci julit yi waxuma la nak julli ga te an nasafatu min al iman kon benen point bobu tamit ñu bayyi ci xel su ko defee nag sëñ góor dafa am wax lu am solo loo xam ne xajul ci temps bi hmm. gis nga xay rek dafa doyoon ci lan jël ko rek benn écorce rek defal ci ndox mi ngay naan benn xas te mën nga ko naan mën nga ko raxasoo ana lu tax xay day défecté microbe yi te da leen di rey soo gisee muy dund junniy at attaque du ko mënal dara benn microbe ñi newul xay lu ko lekk da ngay dee dret da fay rahas rahas da fay rahas serbo bi rahas raxas dëmbeen yi muy reñ yi kon ben ngi noonu tey yi laaj kat yi mbok jigen ñi daire yi nañu fexé bay utiliser laaj ana naka bepp ndox bu ñuy naan mën nañ ci def ben doomu laaj sëñ malik nak garab du neex ca ndox ma ca ndox ma kep ku koy jëfëndiko laaj dafay loo xam ne day fekk jàngoro gis nga histoire vietnamien boobu guerre bi bi mu amee te ñaari soldaar yi nekk ci di jël malade yi di leen yóbbu bi épidémie bi amee bi ñu leen laajee lan mooy seen secret ñoom dañu ne dañuy xëy saa yu ñu xëyee dinañu lekk mu au minimum ñetti laaj kon laaj dafa nekk loo xam ne gisuma lu ko gën ci feebar bi mbokkam ma soble. yonent bi sallallahu alayhi wa wax sànq. Mm-hmm. wax na Sidna Alioune. Mm-hmm. su nekkuloon limay may déeyaaleeg sama borom. dem mhm. sa dina lek ben dom laaj. dinaa lek ben dom laaj kon mbokam ma soble tamit bokku na ci sump bi ngay gis ndax gis nga ne sëñ malik wala sëñ Góora garab yi li ci ëpp li ñuy setoo muy setloo muy sabu ci garab yi lañ koy liggéey bu ñëkkeen mag ngi sumpu lañ doon fóotee. voilà kon sumpu boobu it nga jël xas mi rek mhm. def ci ndab li ngay raxasoo. di raxas benn microbe du la laal man nga koy naan kon daal xam naa ne ci waxtu la ñuy dox te eh, ñu ngi waaj a yëkkati jotaay bi waaye daal li may ñëwaat benn point rek loolu am na solo kon ma delloo kàddu gi xay boo xoolee eh, sunu yaakaar Sëñ Tuubaa eh, fonk na ko lool su ni boo demee kër Sëñ Saaliw gii da fa gis garabu xay gu rëy gu nekk ci këram noonu la bare ci kilifa yoo xam ni njiglaay leen ko def waaye yemul rek ci njiglaay suuf su nekk rek tooke du fa nekk luy yàq du fa nekk ak yeneen yeneen yoo xam ne nii jitaay bi laajut waxtaan woowu. te dañ daan dénkaane seen bopp ci xay. ci xay dund téeméeri at. loolu nag la boo xam xëy na. boo mën naa wéet jox ko su ko defee euh, mbirum faj la mbirum faj moom. Euh, euh. dafa am fu ñu fu ñu yem ci faj ma waaye tomb bi ci topp muy bu am importance fii jamono toll ku jóg doon ab fajkat nga xam ne nii boo xoolal internet bi tey dangay ngay yëmu ci yàlla. te ki ngay ki fajj sax ki jàngale fajj mi da ngay gis ne moom moo gën a feebar ñëpp nga xam ne li muy wax ne moom da koy faj moom boo xoolee day fees dell ci bët ya wala mu fees dell ci yaramo ba pare wëlbitu na da koy faj ban njàngat ngay wax ci loolu. maanaam dafa am fu ma bëgg ñëw rek ci plante garab ak euh, garab yi seen bopp. waaw balaa maa ñëw ci ñi nga xam ne dañuy faj dafa am solo li sëriñ bi wax ci garab hmm. garab yi. bu ñu fàtte ni garab moom dong mooy ki nga xam ni soxlawul te jóg dem uti lekk soxlawut a jóg dem uti naan gaynde gi dafay am shahawa maanaam dafay am itte am nam nam l'instinct animal daw dem rëbbi ji pour mën a lekk nit ki day jóg def itte pour mën a lekk garab moom fi mu toog lay toog defar usine lekkam lekk la ma war a lekk barakallah ñii koy ñii si naa war ñoo jox temps bi naa jeexal yàlla xam dañuy def lu ñu njëkk di jotaay bi rek waaye ngërëm li nag ñu ngi ko ndax xalaat bii sëñ Abdou Samad moom nag daa ngay wax lenn ci ay ay ngërëm yitteem du lenn lu maanaam nit ñi am jàmm fi mu kenn ku ci nekk sa xam-xam la nga mën xam na ko moo tax ñu boole ñu nii ñii di seetaan bàyyi leen xel jotaay bii sëñ Abdou Samad moom moo ko moo ko xalaat ba tax ñii am ñii mu tànn nag dañoo tànn war a waxtaan ci ci gàncax bi ko ñaanal yàlla mooy nit am jàmm kon moom gi yàgg bu ko defee ci ci ci ci ci ay kàddoom mi ngi lay gërëm bu baax a baax sëñ bi mu ngi lay euh, gërëm ndax déplacement bi ak temps bi ak temps ni mu seeree ñu ñu ñu ngi ci sant bu baax a baax waaye gërëm sëñ Modou mi itam te it ñu xam ne yéen ñi ay borom yi xam-xam ngeen war ngeen toll ci foo xamante ni bii war ngeen di jàngale nit ñi di roy ci seen xam-xam ndax ay borom yi xam-xam ngeen nit nag bu defee ay preuve wax ko dara nekku ci kon ñu ngi leen di sant sant ñeen leen di yëkkati jataay bi di jéggalu rek xam naa ne temps bi moo mel noonu. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaye ñu ngi nuyu nag journaliste yi nekk ci ginnaaw. bëgguma tudd benn tur waaye yéen ñëpp daal ñu ngi leen di sant ci jataay bi ak toogaay bu yàgg beeg ak euh, sëriñ si nekk ci ginnaaw ak ñoom ñëpp suñ kilifa yi nekk si ginnaaw euh, damay bañ a tudd benn tur rek waaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal rek di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ak senevision.com la crédibilité notre credo. senevision.com wóor la ñuy tëggoo. senevision.com kumpa tàggoo nag yéen. kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com.